leneen woykat bii di Dieyna Baldé daal dina yëkkati ay kàddu ci journal bii di observateur gannaaw ba mu génnewee ñaari single uh, ba jafe-jafe yi si digganteem ak Mamadou Diop Diallé uh, naa nag nee na fi mu ne nii mu ngi en collaboration depuis ñetti weer ak classique musique uh, kii bi nga xamante ne nii labelu artiste bii di Bril la na sax Bril moomee moo koy produire jamono ji si noonee naa Baldé ne dafa mës bëgg musique te rek dafay wuyandi carrière te tamit dina ñëw. xew ak euh, surprise yu bëri ba loolu weesoo jëy naa ne daal la juddoo euh, fonkoon lool euh, njàngam doon def tamit sport ba jot pratiquer athlétisme laata muy xamle ni weeru février lay am 18 ans maanaam fukki at ak juróom-ñett jëy naa nee na at mi sax day def candidature libre ngir bac bi waaye nee na mi ngi def jamono ji formation ba loolu weesoo la jëy naa dikkaat ci jafe-jafe yu mu jot dund moom nag nee na dund na lu métti la nga xamante ne ni jëlee na si expérience ak ay leçon ba tax na saa su ne day naan moom moomee waratu la def benn erreur waaye nag nee na bu xoolee doomam jeeg famille yam rek day am force ndaxte waxtu yu ñu koy critiquer nee na ak commentaire yi métti woon na lool waaye famille yam ñoo ko doole loon si noonu mu ne baal na ñëpp ña nga xamante ne ni ñoo ngi ko doon saaga ak wax naka su dul noonu tey rek ñaan yàlla mu jéggal ko erreur de jeunesse bi nga xamante ne ni def na ko Dieyna nee na tamit lu mu doon yaay tey tax na mu gën a mature fas yéene def ay valeur si Euh, xaritam yu bëri bàyyi nañ ko waaye nee na loolee amul solo ndax famille am bu ko ëppal solo euh, soutenir nañu ko jooy ak moom di la nga xamante ne nii euh, moo ko gën a ba tax na mu ne bëggatu see wax waaye mi ngi rëccu lu xew ak Diop Iseg bu amaatoon tey nee na pouvoir changer mbir yi dana def carrière musicale ba nga xamante ne nii dara rek du si rax maanaam amul lenn la ci mbirum Dieyna Baldé moom nag daal dinay tur ay rongoñ en direct ca plateau yeewu leen ba ñu ko dalaloon ba muy tàggatoo nee na ko sénégalais yi xaar gën ko soutenir Mado tamit tuur fa ay rongoñ mel ni sax moom moo gën a jooyloo Dieyna Baldé ci noonu Pape Cheikh ak équipe ba yëpp mujjee rek di defal na ak rek di koy jox force Pape Cheikh ko sax yàlla baax na nañu nangu rek destin